wax ne li ak li la mo nek ci MOU bi ñu ngi koy liggéey ak APEX ñu ngi koy liggéey ak ministère des finances ba ñu commencé waxtaan ak ñoom la nga xam ne ñoom loolu la ñu laajte li nga xam ne mooy le état du Sénégal par rapport ak loi yi ngeen voté fii dañu ne kat ñun lii mënuñu ko lii dañ di waxtaan ak yéen lii mënuñu ko donc sur les vingt points treize points moo ci desagum en attendant que la deuxième phase d'exploitation démarre bu boobaa par rapport au contenu local yëpp dinañ ko waxtaanee. maa ngi leen di gërëm di leen sant.